waaw euh, salaamaaleykum man la Ousmane Ba Goto man ma dellusiwaat pour ñu yeggale waxtaan bi <laughs> ah. tey jooyu moo quoi tey damay reetaan <laughs> parce que dama kontaan parce que vraiment lii laa bëggoon lii laa doon ñaan ah sénégalais yu jóg jël seen destin en main jël seen responsabilité euh, def lu ñu war a def quoi parce que ça fait des siècles ñu ñuy noot ok gouvernement bu ñëw rek def lu ko neex dem gouvernement bu ñëw dem ñëw saaga ñu dem ko te loolu waratuñ koo nangu léegi euh, d'après samay source xamal nañu ma ni Ousmane Sonko dans les dafa war a jóge section de recherche à 17 heures heure Sénégal pour jàkkaarloog pas juge d'instruction bi yore dossier bi Mamadou Seck mais Samba sal juge premier cabinet te Samba sal mo gën a un petit ci juge yi le Sénégal ñëpp monde bi yëpp xam nañ ko comprendre nga pourquoi parce que Samba Sall da ko war a mettre mandat de dépôt mandat de dépôt mooy dañ koy envoyé rëbës te rëbës prison la Macky Sall toj gàllaaju Sonko la bëgg quoi ay maraboom dañ na ko ne foo nga tëj Sonko boo xoolee le 3 mars la tëjoon uh, Karim Wade mars aussi la fi tëjoon Khalifa Sall le 3 mars aussi la tëjaat Ousmane Sonko 3 mars bi dafa am ay mbir yu nekk ci biir dinañ ko jéem a décortiquer tuuti xam nga le 3 mars 2013 la fi tejon Karim wad le 3 mars 2017 mu tej fi Khalifa sad le 3 mars 2021 mu tej fi Ousmane Sonko te ñom ñep 4 ans de différence parce que 2013 bu 2017 4 ans la 2017 ba 2021 4 ans la quoi comprendre nga ah te ñun ñep xam nañ ni mars. mooy mois wu franc-maçon parce que chaque mars c'est-à-dire première semaine mars bi franc-maçon yi dañoo war a tour deret mooy ci la ñuy def seen sacrifice quoi comprendre nga waaw moo tax Sénégal il fallait deret tour te deret la boo xam Macky Sall mooy am volonté wu tour ko quoi pour yok ay pouvoir musikam loolu moo ko waral ah même bu fekkee nekkatul président sax pour mu kon ne di am pouvoir il faut mu rey nit chaque le 3 mars chaque 4 ans le 3 mars donc Macky bandela la bu mag criminel la on veut plus de lui dafa war a démissionner day dem fekk demul bu ñu bàyyi saa ko pour ñoom dans leur tête révolution bi deux jours lay dire trois jours après mu jeex quoi non non non du demee non. te il faut sénégalais comprendre que nañ ci guerre le Sénégal est entré en guerre civile officiellement pourquoi parce que l'armée bi amul droit tirer le peuple bi bu dé police wala gendarmerie ça mën pas comprendre mais l'armée... défendre peuple am la def bu ko benen peuple di attaquer peuple am nak law ko fa wara a défendre peuple am quoi amul droit tirer ci peuple am té armée bi tirer na ci sénégalais tirer na ci peuple am fële ca benjona casamance bañu ray fa ben xala bu am 20 ans donc le sénégal en guerre civile parce armée bi amul droit tirer ci peuple mais li yep Macky mu ngi ko don wër depuis longtemps c'est que comme mom dafa dafa bëggoon dëkk bi déstabiliser wu quoi yàgg naa leen même avant élection aussi dugal nañ ci bopp ñi avec la complicité de la presse dugal nañ ci bopp nit ñi que affaire bi la quoi affaire u la contre les wolof af wala contre tombez xeet yi c'est faux na tombé pas ci piège bu leen tombé ci piège boobu Macky Sall doomi xaraam la du du xaal jodo wul sa fuuta do haram bu. fatek lo judo comprendre nga mais maki il est prêt pour sacrifier ci xeet bi mu pour ay intérêt personnel nous sénégalais on est plus intelligent que ça man kan mo ma gëna nek pol ci ko suuf pol pire sous pol pire bokk ak sama papa ak sama yaay sant ok mais man ma gëna bañ maki ci ko suuf Albaji Sall pel mo ben gën a bañ Macky ci kaw suuf Sat Sadia pel pur kan la sant mo gën a bañ Macky ci kaw suuf nit activiste yi gën sonal Macky ay pel lañ donc tay buma ma leen ngeen def yenn publication wala def yenn commentaire yi man dama am lo ma metti quoi damay mer quoi dama am lo mer parce da ngeen ma sako quoi da ngeen ma sako quoi est-ce que comprendre ngeen ak effort yi ñuy joxe depuis très longtemps ngeen ñuy saako quoi dañu manqué respect mel ni yéen yéen a ñu gën a nekk ay sénégalais wala yéen a ñu gën a bokk benn liste boo xamante ni amul benn source amul benn entête amul benn preuve liste buñ bind ak tournée rek jël ay sant yu leen neex def ci te mu am yeneen sant si nekk am naa ay saako am naa yeneen ngeen a pël yi ñoo si gën a bëgg pël yi la pël yi la pël yi la mais vous foutez yéen kan ngeen di fontoo bu leen ñu saaga combat bi ñun kenn gënuñu see sonn te buñ neexoon na Macky ci suñu xeet la nañ ko jàppale te barke salaatul faatiha Macky bu amoon ku mel ni man kon du nekk ci situation bi mais man dama ànd ak nit ci ay fen walla xaalis est-ce que comprendre ngeen moo tax utiliser leen seen xel man damaa bëgg nit buy utiliser xelam quoi doo dégg tëll nga ne toj na parce que da la jox xal pour ngay analyser donc voilà bàyyi leen saaga yi ngeen ñu saga ci biir lolu directrice Cap Manuel moy kaso bañu tej tëj mari Marius euh confirmer ni ka effectivement Guy mari Sagna démb barke dem lañ ko futti futak nen, dugal ko ci kasso bu landam bo xam amul lamp amul ndox amul dus, amul dara ba pare dañ ko dor pourquoi ñu laaj ko lutax mo na woy pasaka a ge mar sana da leen traité ya sach lalan lalan lalan quoi la leen la leen la leen la leen wax quoi donc ñu mer mom ci personne mom mom personne mom mo demander pour payitaan sa yu dor Guy Marius bu Guy Marius Sagna deewee si seen loxo ñom ils e seront responsables lo dal Guy Marius Sagna ils e seront responsables maintenant Ousmane songo warul dem kaso ñu ko setan senegal guddegul mën nañ dem doxi palais directement bu senegal yëpp Dakar fëpp a nga tak fu mu doon ñep ñëpp bu ñu dem palais Macky tay du ko fanane ci biir loolu tam dégg naa mu ngi préparé benn voyage pour ñëw fii Canada Canada fi moom ya, ya, bu ñëwee xanaa day laaxatu parce que ñu ngi koy préparé lu rëy bu fekkee dina fi teg tànkam comprendre nga ci biir loolu tam dégg naa Maram Faisal depuis ce matin mu ngi Touba pour am ndigalu xalifu général de Mourid mais du ko am parce que dañoo bëgg xalif bi def benn déclaration pour wax nit ñi dañ toog seen kër loolu xalif bi du ko def nañ noppalu loolu xalif bi du ko def parce que parce que aussi parce que aussi lol mënul nek quoi ne situation bi débé ni hein ah, amul ben doomu aadama bo xam dara ñu wax ñu bayyi ñu bayyi parce que dañu sës quoi dañu sës Sénégal ya ko dara ñaata jeune ñoo dé ci géej gi di essayer pour dem pour dem pour dem pour dem euh, euh, Espagne c'est des centaines et des centaines wala milliers de jeunes les jeunes yo yop sen avenir mu ngi noonu yàqu na quoi parce que ci ay ndigal yoo xamante ne ay kilifa doon joxe ñëpp toog mais cette fois-ci duñ toog yéen ñi may seetaan école Dior rond joor Dior Total taal nañ ko fa léegi léegi mais état bi envoyé na fa ay nervi ñu ngi noonu di ñëw soit ngeen jàkkaarloo ñoom xeex ak ñoom soit. ngeen ngeen déplacé wu quoi parce que ñoom ñëpp dañoo armé wu tamit ay mais amul ragal comprendre nga parce que affaire bi moom ah, comme jóg na rek nañ jóg xamal nañ ma aussi que kër Alioune Sall fële ca Géejawaay booy taal nañ ko ok donc kër Alioune Sall moom lépp lu ngeen fa jëlee moom ndax Alioune Sall amul papam amul papaam ba mu dese su ba mu desetee soixante-dix la bàyyi comme héritage ñoom Macky Sall soixante-dix mille CFA la seen bàyyi bàyyi comme héritage donc ñooñu liggéey lu tax ñu mën a am milliards ñu am amul benn mbokk bu am alal Macky Sall ah, sëriñ daara yi tamit c'est je suis pour la protection des enfants je suis pour les daara moderne yoo xamante ni organiser nuñ ko comme nuñ ko war a organiser pour xale yi jàng ci anam yi ñu war a jàng aussi euh, ak mu ànd ak sécurité daal mais tamit loolu liggéeyu état bi la état moo ko waroon organiser ellio ñu organiser ko organiser wuñ ko quoi jàppale wuñ xale yi aussi toroxal euh, euh, marabu sëriñu daara yi te sëriñu daara yi am na si daara yoo xamante ni depuis plus de cinquante ans wala cent ans la existé te formé na ay borom xam-xam yu mag yu fi réussir ba nekk fi ay multimilliardaire donc daara yooyu c'est des daara kun yi te toroxal nañ leen fi quoi mais am na ay daara business yi nga xamante ni ñoom ñooy jël ay ay euh, ay ay ay euh, tabaxu jàmbur boo xam a pareagul ñu def ko daara daar yooyu noonu xale yooyu ngeen gis la plupart ay Guinée Bissau la ñuy jógee ay Guinée Conakry ay Mali ay Burkina Faso parce que bu fekkee yàgg nga yaram xale di leen sarax Dakar da nga leen di wolof duñ sa dégg duñ la mën a tontu duñu xam lu ñu wax kon ils ne sont même pas des Sénégalais peut ay quelques rares yu jógee ay booru Kolda Tamba parce que ay Kolda Tamba côté yooyu noonu ci biir ci ngaabu ngaabu côté boobu ci kaw am na si ay Sénégalais yoo xam ne dégguñu wolof quoi parce que côté boobu. la plupart voilà, voilà, voilà, voilà, Socé voilà, genre affaire quoi comprendre Voilà. voilà euh, Ousmane Sonko warul fanane ji parce que nous, dossier dossier bi ko viol bi dafa vide y a rien amul dara amuñu benn preuve buñ ko a ci lool ok parce que ñom dañu fausser depuis départ bi depuis Sidi Ahmed Mbaye départ boobu lañ faussé comprendre donc looloo taxoon programme bi loxoti dossier bi ci loxowu section de recherche pour ñu bañ a continuer enquête parce que section de recherche bu continuer enquête bi dina am ay ponkal yu daanu quoi mais dafa jël dossier boo xam dafa vide parce que dossier bi PV bi ñun am nañ ko liir nañ ko won nañ leen ko fi comprendre Pape Alé leer na ko wan na man leer naa ko wan naa ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen quoi avocat yi yor nañ ko avocat Sonko yor nañ ko léegi nag procureur de la République tey sa matin démb loolu moo andi woon problème bu Sonko bi sax quoi ils ont fait exprès pour bloquer ko gars yi fipp ñu accusé ko rébellion en ce moment procureur de la République sëñ Sirou Gueye dafa wax commandant brigade de recherche ci PV biñ nekk di defaat ne ak Sonko parce que ñu ngi koy poser ay questions Sonko nangu leen tontu nee naa amul dara lu mu leen di wax devant ses avocats nee daal bu fekkee heure waxtu julli jot na nañ ko yëgal quoi mu jóg julli loolu la sekk ak ñoom léegi nag procureur de la République nee na mu nañ trouver ay solution pour accuser Sonko loolu lañ nekk di def parce que pour ñom sonko buñ ko tejé dañ mëna contrôle boy té luñ xamul moy sonko buñ ko tejé dëkk bi gëna tank ko xamné tejo guñ ko dëkk bi di laq kooku buñ ko tejé xana dëkk bi day sey affaire daf leen surprendre parce que pour ñom affaire bu du démé ni sénégal ñi jog ñëpp sa bokk ñu ci passef mais liñ nekk di troxol sonko mo leen metti parce que dañ ko gis ñuko ko makki da ko fe c'est que makki dafa mel dafa mel ni ci année bi mu ci génération dafa mel ni jamono jamono yi Senghor la bokk quoi noon na gouverner bi d'une autre façon parce que tey bu doon Abdou Diouf moo def li bu doon jamonoy Abdou Diouf la mu mën a comprendre bu doon jamonoy Senghor la mu mën a comprendre mais jamonoy Macky Sall nga xamante ni majorité wu ñu ko votal génération waay nous ñom la wax génération ñi nga judd ci technologie dañoo judd fi Facebook dañoo judd fi ay Instagram dañoo judd fekk fi ay ay ay ay ay ay Snapchat judd fi ay téléphone judd fi ay ak seen Afrique Sénégal fofu connecté wu seen téléphone gis lay au New York gis lay xew France gis lay xew Japon en temps réel laa la wax live réel temps réel nous koy gis li américains yi sol la ñuy sol xam kan moy Jay-Z xam kan moy Beyoncé xam kan moy Ronaldo xam kan moy keneen ak ok De la woyal ay woyu Jay-Z la woyal ay woyu rappeur yëpp comme di ci jaar xam informé wu xam lépp lu xew ci monde bu yàlla defee nga gouverner jeunesse bu fekkee boobu jamono dafay am nooy noo leen di gouverner pour nga bañ a am problème ak ñoom parce que ñooñu dañuy bëgg di vivre li américains yi di vivre dañuy bëgg li am New York am seen dëkk dañuy bëgg li am yoo am seen dëkk léegoo joxoo leen yooyu possibilité wutaloo leen liggéey bu ñu feebaree duñu faju bu ñu bëggee jàng duñu jàng ñu ciy jàng seen bourse yi sax dafay tarre ak yeneen ak yeneen ak yeneen wutaloo leen liggéey nga tàcc nag di leen toroxal tàcc ku wax nga door tàcc ku wax nga tëj tàcc ku wax nga bundoxatal tàcc ku wax nga menace ko mais ñooñu sa waay waroon nga comprendre benn bombe de retardement la rek boo xamante ne da doon xaar benn moment bu opportun rek ñu explosé loolu mooy la dal Macky Sall ci kaw Ousmane Sonko bi ba moom amul dégg-dégg bu amoon dégg-dégg wala mu am sëriñ baax waroon na xam ne Ousmane Sonko du n'importe qui parce que bu xoolee trajectoire Ousmane Sonko fu Ousmane Sonko juddoo li mu dund fu mu jaar ak ni situation am demee waroon na xam ne kii c'est un messager c'est que yàlla moo ko quoi waron nako comprendre ak liñ fi def do mu adami xulal keur yiñ fi toj xam nga lan moy nek ci alabri bi pendant 20 ans de dagalé jënd terrain tabax sa keur nga xey tok ci télé bi gis ñukoy toj bo gëmul yalla dog da ngay dof parce que tay bu fekkee da nga am 45 ans fekk liggéey nga 20 ans pour dajale nga ñew Europe à l'âge de vingt cinq ans liggéey vingt ans pour dajale ba am kër nga am quarante cinq ans ñu toj sa kër nga war a liggéey yeneen vingt ans pour amaat kër bu mel noonu ban âge ngay am soixante cinq ans ngay am soixante cinq ans loo mën a def dara moo tax ak doomu aadama yooyu noonu modal dal Jap Macron rek Macron boy bu ndaw ju dogul ben boy gor jigen rek dila manipuler Lum la wax nga def am complexe tubab comme pas possible ci ber lolu xamal nañu ma ni Adji ngi préparer pour génn Senegal. parce que ñoom soxlootuñ Adji Sarr fu mu toll nii soxlootuñ ko quoi parce que dossier adissar bi c'est complètement vide dina lan wax kañ lay adissar di dem dans la norme mu ngi wara quitter senegal lundi à 23h15 minutes aéroport international Jazz. lay déparé. mu ngi jëm Lisbonne foofu la ca Portugal salon d'honneur lay jaar commissaire Mamadou Bopp nga xam moom mooy commissaire u police spéciale bu aéroport Dias il a reçu des instructions directes de Antoine Félix Niack Diome ministre de l'intérieur euh, c'est vrai que changé nañ turu ndaw si ci passeport parce que turu ndaw si bi ma ko jotee ba def live ba wax leen ko changeal nañ ko passeport diplomatique bu bees passeport bu bees bi mu ngi ci tudd Daba Pouye Angélique Daba Pouye Angélique Daba la tudd ci passeport bi man Ousmane Ba maa leen ko wax du dañ donc nañ continuer manifestation yi continuer xeex bi continuer révolution bi libérer suñu pays ah une bonne fois pour toutes euh, ba pare nekk benn peuple quoi bañ a nangu politiciens yi jaxasuñu parce que actuellement bu ngeen amul sens da ngeen des na tuuti rek da ngeen gis ay commencé vidéo yu commencé daw ah nga dégg ay nit ay booy yoo xam ne dañ leen di fay ñuy wax ay pulaar di saaga wolof yi wala wolof yi di saaga pël yi wala genre affaire yi quoi da ngeen ko gis fan yi ils ont même monté. des des audios en Sonko ak Adji Sarr et tout ça parce que opinion publique bi lañ bëgg a perturber un peu quoi. léegi fii ak suba bu fekkee libéré wuñ Sonko ñoom suñ devoir mooy fu Sénégal a nekk Sénégal nañ jubale dem palais buñ jubalee dem palais Macky Sall dina daw man maa leen ko ay caaxaan. merci beaucoup jërëjëf le combat continue man ma continue ci stratégie am ci communication bi wax ak ñi fi wax ak ñi wax kii mu def mudafli, wax kii mu envoyer fi ay nit ñu def li ñi def li ñi def li après après lu xew xew man je m'en fous man tol na situation bo xamanteni tay tol na moment bo xamanteni même police Canada bu ñewon jël sama ma na ma dëgg dem Sénégal barke ar xam parana pour dem pare pour dem mais instant bi ni mënumaa dem parce que am fi am ay responsabilité yor fi liggéeyu jàmbur ba pare aussi ñun en ce moment ni ñu nekk ci diaspora bi je sais euh, révolution mi xeex bi soxla nañu ko parce que aussi am na yéen mun leen xam quoi mais di ngeen ma gis may publier affaire yu bëri ay nit yu ñu xam Sénégal ay personnalité yu nekk ci ay télé nekk ci ay rajo nekk wala ñu ñu xam ñoo ñoo moo koy jox na ma publier ko parce que ñoom buñ ko publier gars yi jël si leen xeex bi ñëpp ci am solo fu mu toll nii man yow mi may seetaan parce que yéen ñi may seetaan bu ngeen paree di ngeen di ngeen communiquer ak seeni i seeni seen i famille seen i xarit di ngeen def ci li ma wax xool li nga xamante ni moom moo ci mën a jëriñ suñu suñu réew ngeen utiliser ko quoi ñu avancer parce que affaire bi moom amul reculer quoi amul reculer quoi jaa ngeen jëf merci beaucoup ci déglu bi jaajëf